jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag su waxtu wi jotee ngeen di faratal di teelu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy di Diouma Ndour Diouma nekk secretaire général euh, bu association des malades de thyroïde moom mooy ne kuréel boo xamante ne dafay jàppale bépp doomu aadama boo xamante ne dafa am jàngoro bi di thyroïde juma ñu ngi lay wax euh, jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax te di rafetlu nangu bi nga nangu suñu invitation bi dalalal jàmm ci rajo Rewmi FM Diouma merci Fatou maa leen di remercier man maa di remercier bu baax a baax ci dalal bi. Mhm. jërëjëf. Mhm. Euh, sant ko gërëm ko bu ñu ne association des malades de thyroïde ñu bëggoon rek euh, taxaw ci kuréel boobu tey jii ci ban anam euh, ngeen ko daal di taxawalee. maanaam association des malade de la thyroïde ñu gën ko xam ci asmat mm-hmm. ñoo ngi ko taxawal le 16 novembre 2014 Tamba la commencé. Mm-hmm. donc ñoo ko taxawalee Tamba mooy suñ président Mame Ndeye Sène mm-hmm. moom moo am idée boobu taxawal ko Tamba. moom malade la bu mu feebaree aussi ci la xel bi dem ne comme du feebar ba pare di faju te deful dara pour ñi am goiat donc ci la taxawal ak quelque membres yu nekk Tamba ñu taxawal association bi le 16 novembre 2014. Mm-hmm. léegi mu amoon benn émission une télé de la place buñ ko fi invité woon mu ñëw fi def émission matinale bi léegi ñun ñu gis ko muy man Juma ak Zeyna ak Ndeytaal mm-hmm. buñ ko gisee après ci ku nekk te xamantewuñu woon aussi mais feebar bee ñu boole ku nekk ci lañ ko woo téléphone wax ak moom moment boobu Tamba la doon servir. léegi après ci la ne suñ ko dina ñëw Dakar léegi su ñëwee Dakar muy ñaan affectation su ñëwee dinañu contacter. Mm-hmm. léegi bu fi ñëwee nag contacter ñu ci la ñu toog ensemble ñun ñeent ñooñu amoon na keneen aussi Fatmata Aw. on mm-hmm. était cinq. Mm-hmm. léegi ci lañ toog. créé ASMAT fii national au niveau national. Mhm. maanaam c'était régional kese la woon Tamba. d'accord mais bi Ndeye Sène ñëwee bi ñu ko affecté fii nii Dakar ci lañ toog nag toog ak moom waxtaan téléphone gisante ci la ASMAT juddoo fii daka mu nekk national daal. Mhm. donc ASMAT moo ngi ci région yi yëpp la nekk. Mhm. fii nii Sénégal. Mhm. Euh, ASMAT euh, c'est plus large euh, régional la léegi mu nekk national tey jii mhm. rek ñu buggoon nga wax ñu koo xamante ne dafa am jàngoro bi di thyroïde naka lay def ba mën a adhérer ci seen kuréel boobu. donc suñu association bi c'est simple maanaam ñun sa ñun ñooy dem di wër maladie di xool fan lañ ne ci hôpitaux yi et donc adhéré bi c'est simple il suffit juste nga am sa de membre 1000 francs lañ koy jaayee. Mhm. donc carte de membre bi c'est juste pour mën a enregistrer maladie. mën a xam ñaata malade lañ nekk parce que maa la koy wax au début on était cinq bi ñuy def euh, association bi nationale fii nii. Mhm. donc maintenant ASMAT am na plus de 500 membre donc carte de membre ngay def. Mhm. léegi am na cotisation mensuelle bi ñuy def réunion la ñuy def chaque mois dañuy dajaloo def suñu réunion. Mhm. les réunions boobu suñ fay jóge ku nekk dangay joxe cinq cent. Mhm. mooy cotisation mensuelle bi bi ñuy def cinq cent. donc yow soo bëggee nekk membre ASMAT carte de membre bi ngay jënd mille francs. léegi soo jëndee carte de membre bi mille francs léegi da ngay def cotisation mensuelle cinq cent francs chaque réunion saa yi ñuy dajee ku nekk da ngay joxe cinq cent. donc du ñëpp koy joxe parce que du ñëpp aussi lu seen loxo jot gannaaw ko joxe pour ñun mën ko joxe mais pour nga nekk membre c' est mille francs pour carte de membre bi ak mhm. cotisation mensuelle mille francs mhm. par mois. Mhm. Euh, kon annuellement am nga possibilité joxe une somme pour l' année. wala da chaque weer rek euh, mille francs non non du tout parce am na ñoo xam te da ngay gis ñu ne la. ñiy door a ñëw mën nga ñëw nga joxe sept mille francs sept mille francs yi mille francs la cotisation carte de membre mm-hmm. six mille yi soo xoolee mooy annuel cinq cent cinq cent douze mois yi am na ñu koy def mm-hmm. su la neexee aussi chaque réunion soo ñëwee nga génnee sa cinq cent joxe mm-hmm. wala nga génnee mille francs ne euh, pour ki beneen mois bi am na ñoo xamante ne nag ñoom duñu yem ci cotisation. Mhm. dañuy génne comme par exemple yow soo ñëwee mën nga am plus nga génne mën nga ne cinq mille yi dama ko soutenir maladie parce que loolu aussi dañ koy dajale pour defaat ko ci maladie aussi. Mhm. Mhm. mu mel ni kon dafay xaalis bi ñuy cotiser dafay delluwaat ci ñoom. ci ñoom ci maladie lay delluwaat. maanaam loolu ñuy cotiser cotiser noonu cinq cent cinq cent yooyu mhm. suñ génnee réunion di nga gis benn malaat bu ñëw mhm. amul lu mu jëndee garab mhm. wala mu nar a dem consultation amul lu mu fayee moom lañ koy joxaat mu dem jëndi ko c'est juste pour soutien en gis de soutien la entre ñun d'accord Euh, association bi ngeen euh, créé ko ci début ci Tambacounda ñu buggoon bëggoon mhm. xam rek euh, naka ngeen def ba tey jii nii association bi nekk une association nationale. d'accord moom laa la wax ci njëlbeen noonu maanaam bu mu ko ndey bu mu ko créer Tamba maam ndey Sène mooy présidente bi bu mu ko créé Tamba ak quelques membres foofu. Mhm. ci lañ ko gis télé benn télé de la place. émission bu ñu ko invité woon ci émission boobu nag la lépp jógee pour pour bañ a def publicité rek moo tax tudduma turu télé bi. allez-y. d'accord ci la jógee. Mhm. donc après bi ñu ko gisee numéro bi dañ ko def. dañoo affiché numéro bi man ci laa waaw man ci laa jël numéro bi woo ko mhm. ndëkkatee aussi Sey dumb Doumbouya mooy chargé de la communication action sociale moom tam jël na numéro bi ndeytaal trésorière bi aussi jël na numéro bi mhm. Fatmata Aw aussi jël na numéro bi mhm. ñun ñooñ la woon mhm. léegi bu jëlee numéro bi ci lañ woo ndey man dama ko woo personnellement bi ma ko woowee après ci la dina fi ñëw Dakar mais su ñëwee Dakar rek dinañ gisante léegi yàlla def nag ñu affecté ko fii Dakar parce que fii lay liggéeyee léegi buñ ko affecté ci la ñëw woote woo ñu ne ñu maa ngi Dakar ci lañ def tout ba réunir premier suñ bu ñuy njëkk a réunir ñooy réunir c'est l'ISCA mooy seen siège. d'accord mooy seen siège waaw foofu la ñu kiiwee waaw. Mhm. foofu la ñu kiiwee foofu la ñu njëkk a après ci lañ ki Abass Ndao bi ñuy gisante Abass Ndao faatu mhm. amuñu woon sa salle buñ toog. Mhm. ci gis nga maternité Abass ndaw bi escalier yi noonu. foofu lañ taxaw. foofu lañ taxaw weeru foofu wax li ñuy wax. ku nekk génnee 500 ñu joxe. donc cinq 500 boobu on était quatre je crois bien. Mhm. bu ñu cotisé daal amoon nañ 3500 bi ñu fay jógee. Mhm. donc 3500 boobu tey moom moo jur asmat bi nii national bi foofu la mhm. national bi commencé da ci lañ def suñ démarche et tout. ba am suñ kii association nationale. au yemu yem Tamba kese parce que feebar bi yemul Tamba kese. tout à fait. Euh, wax nga ko ndax euh, démarche yi yomboon na ca jamono jooji rawatina ngeen nekk ñoo xamante ne certainement seen doole demeewul noonu euh, surtout aussi que ne seen i lim tamit bariwul woon aussi. yombul nag Fatou. Mm-hmm. yombutoon métti mm-hmm. woon na trop mais xam nga soo am su amee lu la animé yow doo dellu ginnaaw. parce que ñun ñëpp ay malade lañ. Mhm. ñooñu ma la naan ñu ñoo réunir woon nii pour def nationale bi nii ñun ñëpp ay malade lañ mais dafa amoon benn lu ñu yëkkati feebar bi donc moo taxoon lépp lu mu jafe-jafe bu ñu doon jànkoonteere dañ doon dem avancé. Mhm. donc métti na torop métti na ba tey jii dafa métti. Mhm. démarche yi métti woon na et tout mais dañoo foncé xam ne lii lañ bëgg a def te defuñu ko ngir suñ bopp parce que ñun ñëpp. kenn du si fajoo ci asmat ñun ñii def membre créateur yi nii yëpp duñ si kii. Mm-hmm. ñun ñëpp suñu xaalisu bopp la ñuy fajoo. Mm-hmm. mais dañoo gis ne am na ñoo xam te ne ñoo ngi fii population lambda yoo xam te ne ñoom pour ñu faju rek problème la. tout a fait loolu loolu moo ñu animé woon ba nga xam te ne yow da ngay naan man du ma feebar maa ngi faju yàlla sant yàlla mais am na ñoo xam fajuwuñu. Mm-hmm. donc il faut nga def dara. tout à fait. métti woon na torop te ba tey dafa métti. Mhm. Euh, ba tey dafa métti Diouma Ndour ku wax euh, association. Euh, wax mhm. certainement ñoo xamante ne dañoo nekk ci ginnaaw moo xam ay mhm. bonne volonté ay partenaires wala ay mécènes sax tey jii rek ñu nga ñu buggoon rek nga wax ñu de manière nu mu gën a yaatoo ñan ngeen di gën a farataal di collaborer ngir ngir mën a venir en aidant ñi nga xamante ne dañu am jàngoro bi di thyroïde. d' accord léegi kon suñ collaboration maanaam suma partenaire bi muy njëkk a wax suñ bopp la. Mm-hmm. ñun membre yi ñun ñoo njëkk nekk suñ premier partenaire ñun suñ membre yi la. Mm-hmm. ñu ñooy ñu ñooy jàppalante suñ biir pour mën a def li ñuy def. ba pare am na aussi BOA BOA aussi ñoom ñoo ñoo si jàppale parce que saa yi ñuy def comme suñu journée ñoom dañuy ñëw taxaw dinañ ñëw taxaw. Merck aussi suñ journée yi passé mooy journée deux mille dix neuf bi. Mhm. ñoom ja taxawoon nañu. Mhm. waa Merck. Mhm. ren ji waaye ci HPL ñoom ñoo taxaw. donc dina am yoo ñu fay taxaw ak am na aussi médecin yoo xamante ne saa yu ñu leen saa yu ñu jaaxle ci malade suñ leen woowee. dañuy ñëw nañu indil leen ñu ko si fay consultation lañ leen di defal gratuitement waaye université aussi fac médecine signé nañu ñoom convention boo xamante ne jàppale nañu ba nga xamante ne saa yu amee suñ malade bi dem defi analyse ci ñoom mhm. suñu defee ñun suñ cachet association malade bi su demee dañ koy wàññil ci lu mu waroon a fay analyse am dañ ko siy wàññil vingt pour cent mhm. donc ñooñu aussi suñu ay partenaire lañ mooy univers fac médecine mhm. ñoom dañuy siy jàppale bu baax a baax ci analyse parce que ñëpp xam nañ analyse yi nu mu métti mais dañuy siy wàññi vingt pour cent d'accord ah dag leen ci wàññil euh, vingt pour cent vingt pour par rapport ak médicament bi wala par rapport. non non analyse bi analyse bi ngay def analyse bi ngay def. maanaam tey su fekkoon analyse bi xam analyse am na boo xamante ne dix mille la. léegi mhm. su fekkee tey soo demoon pour fay dix mille. Mhm. yow nga jaar si ñun ñu defal la cachet kii bi association bi soo demee huit mille ngay fay. d' accord d' accord mu mel ni appui boobu c' est quelque chose de considérable c' quelque chose de considérable aussi fondation Servir le Sénégal aussi ci deux mille dix bi aussi appuyé nañ ñoom tam. Mhm. defaloon nañu appui. d' accord ci mhm. côté wu ministère euh, donc euh, bu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram ndax am ngeen fa mhm. benn démembrement boo xamante ne yenn saa yi ngeen am benn cas de thyroïde boo xamante ne upp na seen bopp ngeen mën a bind lettre boo xamante ne ñoom dañuy ñëw en appoint ngir sa prise charge jëm ci wàllum garab ak euh, lépp lu ci wax. non non loolu nag amaguñ ko. Uh-huh. mais ñoo ngi ci yoon bi nii di ko moom la ñuy def mais amaguñ ko exactement pour ministère ñu am benn ka comme ni nga ko waxee ñu am benn ka bu urgent ñu woo leen ñu jël ko en charge boobu amaguñ ko ci ñoom. Uh-huh. mais saa ñuy def journée ñoom dañuy taxaw suñ journée. Uh-huh. suñ journée dinañ ci taxaw. mais pour ñu am cas urgence ñu interpeller leen ñu jël cas bi en charge boobu amaguñ ko ci ñoom peut-être à l'avenir ak fi muy ñëw nii dinañ ko am ci ñoom parce que ñun loolu mooy suñ xeex. suñ euh, euh, suñu allez-y mhm. allez-y demal allez xeex tey moom mooy tey ministère dem ba nga xam ne benn cas urgent wala cas urgent parce que duñu am benn cas urgence. Mhm. dañuy am ay cas urgence yu bëri. tey suñ xeex tey moom mooy cas urgence yooyu tey fu ñu fëggee ministère ne leen cas urgence bi wala ñu am loo xam ne dañ koy par exemple orientation boo xam te ne cas urgence bi fu ñu dem rek dañuy naan ministère moo ñu yebal ci yéen ñu jël ko en charge. Mhm. donc fu mu toll noonu fu mu toll nii instant bi ma lay wax amaguñ ko. ci ñoom d'accord mais peut-être dans l'avenir fii ci kanam nii. Mhm. dina am incha allah. Mhm. yaa koy mhm. wax euh, nee ngeen euh, bu ngeen amee bëccëg mu mel ni comme euh, le vingt cinq mai bëccëg boo xamante ne moom lañu ñu jagleel ñi nga xamante ne dañu am jàngoro bi di thyroïde ñoom dañuy farataal di di di ci jàpp ñu bëggoon xam rek ndax jàppale boobu defuñu ko de manière timide je m'explique boo jëlee par exemple sibiru wala ay sida wala yenn. yenn yeneen mhm. jàngoro yi on a comme mhm. l'impression que suñu autorités yi elles mettent un peu plus l'accent sur yenn euh, jàngoro yi au détriment des autres ndax ndax gisuloo ne apport bi certes am na mais ça se fait de manière un peu timide si si effectivement si ce que je moom laa doon wax léegi nii nii nii mhm. am na apport bi day am mais apport bi c'est un peu timide fu mu nii pour le moment nii c'est un peu timide looloo gën a nekk na suñu xeex asmat parce que feebar werante wuñu ne feebar baa ngi fi mais c'est méconnaissable ñu bëri xamuñu ko te pour ñu xam ko il faut aussi ministère appuyer wuñu bu baax a baax a baax a baax mm. appui bi financier c'est bon mais appui côté médical aussi moom lañ gën a soxla mm-hmm. pour ñëpp xam ko mm-hmm. parce que ñoom ñoom moom ministère suñuy xool ni su nekkoon borom euh, borom moom mooy suñu borom kër fu mu toll nii mm-hmm. ñu lépp lu ñuy def ci tutelam lañ koy defee ci tutelam lañ koy defee moo tax bi nga naan c'est un peu timide foofu dinaa kii ak yow c'est un peu timide aussi. Mm-hmm. mais peut-être dans l'avenir dinañ dem ba fu ñu teg euh, par exemple paludisme ak sida bi nga tudd noonu. Mm-hmm. et tout yeneen jàngoro yoo xam te ne Sénégal fépp foo ko ko. Mm-hmm. peut-être ñoom dina foofu ko fa teg. mu nekk des ko teg foofu parce que instant bi loolu rek lañ bëgg loolu rek lañ soxla. parce que loolu foog naa suñ ko xamee comme ni ñu xamee sibiru wala sida ñu bëri dinañ ko moytu. Mm-hmm. mooy prévention bu ñuy wax. Mhm. il faut prévention balaa ngay prévenir dara il faut nga xam ko. d'accord loo xamul mënoo ko prévenir. Mhm. Euh, justement sax ñu taxaw ci li nga xamante ne moom moo di la la la la prévention. tey jii mhm. ndax euh, jàppaloo ne dañuy wax sensibilisation wax information mais ndax tey jàppaloo ne euh, sensibilisation bi dafa des trop soxal naka la ñuy aaree jàngoro bi di thyroïde ak i tamit boo ko amee yan yan yan yan yan jumtuwaay ngay jël. jël ngir mën a am ab tànn si si des na des na lu bëri faatu des na lu bëri parce que euh, xam nga mën nga di sensibiliser ñun ñoo ngi def lu ñu mën asmat ñun fuñ toll ñooy def suñuy flyers di def suñuy réunion di def lëpp pour euh, sensibilisation bi mais des na parce que sensibilisation pour mu gën a am suñu ministère il faut mu dugg ci bu baax a baax pour sensibilisation bi gën a am doole mm-hmm. parce que mënuñu ko tëb mm-hmm. ñun lu ñu sensibiliser sensibiliser mënuñoo tëb ministère de la santé. Mm. parce que ñoom ñoo fi nekk. Mm-hmm. donc il faut ñu gën seet ak seen loxo yéen itam aussi ñoo ngi leen di interpeller. Mm-hmm. parce que yéen itam ay porteur de voix ngeen. soxla nañ porteur de voix yi pour sensibiliser population bi ci maladie bi. Mm-hmm. parce que peut-être maladie du Dakar kese. du ay mhm. Tamba kese am na ñoo xam te ne ñoo ngi au fin fond du Sénégal ñoom xamuñu feebar bi. Mhm. xam nañ ko sax mais duñ xam lan mooy thyroïde xamuñu lan mooy goitre da ngay dégg goitre yow da ngay gis moom mais xamuñu ko. justement sensibilisation bi des na foofu bu baax. des des na des na bu baax. Mhm. ñun nag ñoo ngi def suñ kéemtalaay kàttan te defaguñu dara je me à chaque fois naan ñun foog naa su nekkoon benn chemin bu gudd la ñun cinq pas rek lañ ci franchir agum. des na lu bëri. des na mais sant yàlla aussi parce que soo xoolee sa ginnaaw fi nga jógee ak fi ngay dem nii da ngay sant yàlla. Mhm. ñoo ngi def au fur et à mesure ñoo ngi xam di ñu bëri ñoo ngi xam feebar bi à travers asmat. Mhm. ñoo ngi xam lan mooy goitre manifestation yi yëpp te loolu yëpp à travers asmat lañ koy xamee. Mhm. yéen itam si jàpp bu baax a baax a mu mel ni sensibilisation bi mm-hmm. war nañ ko gën a yaatal à ce que mm-hmm. ñu jël ay nit ñuy def ay sketch euh, comme euh, ñu ngi koy farataal di defee wala def ay ñoo xamante ne daal vraiment ce sont des porte-voix euh, comme ni ñu koy farataal di waxee bu ñu waxee mm-hmm. askan bi dégg leen di déglu ndax seen baat day yegg foo ko dul foogee surtout loolu surtout loolu lañ gën a soxla. d' accord euh, ñu des ba léegi Diouma ci li nga xamante ne moom moo di seen association bi ngeen créé ko euh, si biir yi wax euh, ci 2014 bu ma juumulee ah. Mhm. tey 2014 2021 boo ñu doon rek taxaw di defal benn état des lieux wala benn taxaw jàngat lan nga ñu ci mën a wax ci at yi nga xamante ne asmat mu metti mu neex moyen yi nekk na fi nekku fii jot na am ay loo xamante ne ay avantages. courage waaye tamit am na certainement loo xamante ne gënoon na bëgg ñu dooleel ko waaye dafa amul ginnaaw ak ku koy taxawu. d'accord et Fatou depuis depuis 2014 ba tey ñooy fi di góor góorlu suñ di góor góorlu di góorgóorlu di góorgóorlu maa ngi koy rafet di ko répété encore. allez-y mais <laughs> dama gis ne fi ñu jóge woon comme wax naa ko sànq fi ñu fi ñu jóge suñu gëstoo fi ñu jóge rek dañuy naan am na benn pas buñ franchir di dem mm-hmm. Mm-hmm. parce que soo jógee ku jóge ci trois mille cinq cent di cotiser pour jëndal ay malade garab d'accord wala ñun suñ garab bu traitement yi nga xam te ne ñun sama jëndee sama boîte mu des mu àndaa su may dem euh, réunion bu ñuy kii ma yóbbaale sama quelques boîtes nday indi si quelques boîtes am Zeyna keneen a keneen gis nga boîte yooyu la ñuy dajale teg ko ci taal pour ñi nga xam te dañ soxla garab léegi ñu dem ba nga xam te ne dinañ mën a sa jënd même su nekkee dix boîte wala vingt boîte teg ko. Mhm. maye ko donc asma dem na ba nga xam ne au fur et à mesure ñuy dem ba saa yu ñu defee suñ journée wala bon volonté yi. ci biir asma sax da ngay gis ñoo xam dañuy génne seen xaalis génne seen somme parce que maladie nekkul comme ay ñu amul xaalis ak feebar maladie ça touche toute la population. Mhm. donc am na ñoo xam te ne yàlla may na leen tuuti dañuy gis ñooñu dañuy génnee benn somme génnee ko jël en charge kenn opération ci biir asmat te kenn du ko xam. Mm-hmm. donc dem nañ ba nga xam te ne asmat day def ay don de médicament. Mm-hmm. dañuy def ay don de médicament. signé nañ convention ak euh, université Cheikh Anta Diop mooy fac médecine. fac médecine boo xam te ne soo demee sa analyse suñ la defalee suñ cachet soo demee vingt pour cent ngay fay. Mm-hmm. Euh, astafurlaay vingt pour cent lañ lay wàññil. di nga am réduction vingt pour cent. Mm-hmm. ñun asma dem nañ ba nga xam te ne yow su nekkee malaat ah, parce que am na cas sociaux yi ngay jànkonteel day métti ba yow sooy dem su fekkee hospi euh, consultation bi c'est à cinq mille francs soo ñëwee ñu defal la cachet dañ lay defal réduction cinquante pour cent yow da ngay fay deux mille cinq cent ñu fayal la deux mille cinq cent ñun asmat mm-hmm. dem nañ ba nga xam te aussi jël nañ daaw mooy après suñu journée bi 2019 parce que daaw 2020 amul journée. waaw corona bi xam naa moo taxoon. allez-y léegi recettes yi am li ñu amoon jotoon a dajale 2019 bi dem nañ ba 2019 2020 jël opéré nañ lu mot cinq cinq personnes opéré nañ leen. Ah. asmat moo leen jël. Mm-hmm. en charge cent pour frais de l' association. frais de l' association ñun ñoo leen jël à cent pour cent. Mm. fayal leen opération. te mm-hmm. opération doo ñëw ñu opéré la am dañ lay suivre. sa analyse sa médicament di la ko jox mm-hmm. ba médecin bi ne la opération nga def sa bilan def sa opération après opération di nga defaat analyse mm-hmm. soo defee analyse asma dooru quitté ak yow te quitté bi sa du kii parce que amul gara boo jëndee la soo amul loo jëndee la levotirox dañ la koy jox mm-hmm. donc opéré nañ cinq personnes cent pour cent aussi ñu jël ñoo xam te ne dañ leen subventionné pour seen opération aussi ay cinq personnes yu ñu subventionné ñoo xam par exemple da ngay am somme bi yow doo motal asmat complétal la def nañ ko mhm. donc jël mayee nañ plus de mën naa ne plus de trois cent mille francs jënd nañ ko garab mayee ko mhm. ëpp na ko loolu noonu lépp lépp lépp lépp du ma si mën a xóot à cent pour cent parce que Zeyna mooy chargé social bi mhm. moom moo ci mën a détaillé lépp lépp lépp lépp mais mën naa li si wax loolu waaw donc def nañ si ay dons de médicaments def na aussi am na daa mooy deux mille dix neuf deux mille vingt am génne nañ benn somme bu conséquent bàyyi ko fac médecine. Mm-hmm. pour analyse gratuite. Mm-hmm. ñi nga xam te ne amuñu pour lu ñu defee analyse da ngay ñëw cachet bi dañ la koy defaral prise en charge cent pour cent analyse mm-hmm. te du doon benn analyse am na ñoo xam te ne dañuy am ay deux analyses trois analyses yu dix mille dix mille dix mille ñaata la nga am pour dem defi échographie gorge bi écho bi su nekkee hôpital hôpital yi vingt mille lañ koy defee. Mhm. yëpp asmat jël na ko fii en charge ay ay euh, membre am yoo xam te ne ay cas sociaux yoo xam dañuy jóge ci région yi da ngay jéggi ñu woo la nee na lay indil cas benn cas social nooy def. Mhm. il faut nga jël ko en charge. Mhm. donc loolu yëpp faatu asmat def na ko. ci deux mille dix neuf te daf ko yàgg yàgg def depuis deux mille quatorze bi asmat moo ngi koy def mais avec. ay moyens daal la ñuy demee ay propre moyen am. ay propre moyen la ñuy demee. maanaam su nekkutoon BOA suñu amee journée ñu ñëw jàppale ñu merc 2019 jàppale nañu fondation service le service le Sénégal aussi jàppale ñu si 2019 bi. Mm-hmm. ainsi de suite su nekkutoon loolu kon asma du ko mën a def. ak mm-hmm. bonne volonté yi nga xam ñoo ngi autour tapi dans l'ombre di def li ñuy def. Mm-hmm. Euh, merci merci beaucoup Diouma Ndour mu mel ni foofu noonu leer na Diouma euh, ginnaaw bi nga xamante ne wax nañu lépp lu soxal euh, ni association bi di fonctionner ak ñi leen di jàppale ngir ngeen mën a taxawu euh, way maladie de thyroïde yi mhm. ñu bëggoon rek ñëw ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro bi di thyroïde tey ji mu mel ni jàngoro boo xamante ne askan wi xamuñu ko noonu waaye tamit. traitement bi bi ma la déggee ba léegi dafa mel ni traitement bi dafa xaw a jéggi dayoo ñu ngi wax dafa am traitement boo xamante ni dañ koy woowee radioactif tey jii radioactif boobule coût bi nga xamante ne ci ay xibaar ñu ngi koy estimer à cent cinquante mille euh, mhm. sans sans sans sans oublier li nga xamante ne moom la ñuy wax ay frais de d'hospitalisation ak yeneen yi ci xaw a lalu yëpp gisuloo ne fi ñu toll nii tem-tem euh, maladie bu ñu deful ndànk dina dina dina yokk ndax mille euh, certainement c'est pas donné pour tout le monde. d'accord Fatou maanaam euh, maladie bi li ñuy naan euh, kii bi ñuy wax noonu yot bi ñuy wax noonu. Mhm. radioactif bi radioactif bi. radioactif bi d'ailleurs moo nekkoon suñu tam. Mhm. ci journée bii ñu def nii. traitement. par li yoon radioactive parce que ñu bëri xamuñu traitement boobu aussi. traitement bi ñu xam mooy chirurgie opération bi lañ xam. d'accord ak euh, jël traitement bi ba mu stable boppam nga toog. Mm-hmm. moom lañ xam mais iode bi ñu bëri xamuñu ko. Mm-hmm. léegi traitement bi si coûteux. c'est mm-hmm. coûteux cent cinquante mille yooyu nga wax rek yemu fa. yamul ci cent cinquante mille cent cinquante mille yi mooy comprimé bi kese la iode bi radioactive benn comprimé la biñ lay jox léegi comprimé bi balaa nga koy jël da ngay suivre traitement parce que suñ la détectalee maladie bi dinañ nga di nga suivre traitement minimum dix huit dix huit mois lañ lay wax du minimum dix huit mois maximum deux ans. dix huit mois maximum deux ans. deux ans mmh. les dix huit mois yooyu maximum deux ans da ngay def ay opération euh, da ngay def ay analyse du moins. di nga def analyse analyse yi bi ci gën a ndaw ay ay dix mille des fois ñu bindal la ay deux à trois analyses. Mmh. di nga jënd ay comprimé parce que debut maladie bi di nga am problème pour nelaw. Mhm. di ngay stressé wu loolu yëpp problème am na ñoo xam dañuy ñëwee ak problème cardiaque. Mhm. donc dinañ la defaral dinañ la bindal ay différents types de médicaments yoo xam da nga koy jënd. Mhm. di nga ko jënd di nga dem consultation di nga jënd say di nga def say analyse di ko def di ko def pendant combien dix huit mois soo amee chance maximum deux ans léegi soo paree ñu xool ndax feebar bi stable na wala stableul. su stable su fekkee pour opération la ñu proposer la soit nga def chirurgie wala nga def iode bi loolu mooy indi iode bi. Mhm. donc iode bi c'est à cent cinquante mille mais cent cinquante soo ko defee ba pare am na ñoo xam te ne seen kër dañuy dund en communauté. Mm. munoo toog sa kër. isolé wu. Mhm. parce que da ngay isolé wu il faut nga isolé wu pendant un certain moment. Mhm. une à deux semaines. Mhm. parce que yoon bi soo ko jëlee. mënu waroo jëlee excuse-moi Diouma euh, isolation boobu ngay wax. Euh, euh, c'est c'est automatique dañ ko war a def de manière automatique dafa normal quoi ci début traitement si c'est normal parce que iode bi moo tax. iode active bi. dañ lay naan soo ko jëlee waroo jege ku ëmb wala xale. d'accord. parce que ñoom c'est risqué pour ñoom. ok. moo tax dañ lay proposer su fekkee sa kër am nga possibilité isolé wu pendant une semaine à deux semaines. Mm. yow di nga isolé wu sa kër tranquillement am na ñoo xam amuñu possibilité boobu. tout à fait il faut ñu am na ñoo xam dañ leen di garder dañuy préférer garder leen hôpital pour une semaine ainsi ça dépend ci médecin bi lu mu lay proposer. Mm-hmm. donc looloo tax euh, mu cher. Mm-hmm. te en plus soo si paree di nga def analyse di nga defaat bilan pour ñu xool ndax marché na ndax marché wul. mm su fekkee marché na ba pare li après ci lañ lay door a bindal Levothyrox bi ngay jël à vie. d'accord. donc traitement bi c'est hyper coûteux pour ñi nga xam ne am na ñoo xam te ne amuñu ko xalaatuñ ko sax. Mm-hmm. sooy wax turu cent cinquante mille rek ñu ne la benn comprimé lañ la yow benn comprimé de cent cinquante mille baax na. avant-hier maa ngi siy waxtaane benn malaat ma ne ko man moom laa def. Mhm. mu ne ma ñaata la ma ne ko benn comprimé lañ lay jox cent cinquante mille la ñu mu ne ma benn comprimé cent cinquante mille ma ko mhm. waaw mu ma kon baax na. Mhm. ça que bañu ko mais daf ko amul. daf ko amul. waaw justement justement ci seen association bi juma ndax euh, mhm. du ngeen farantaal di jànkonteel euh, cas similaire yu ni mel mu commencé def traitement dem ba à un certain moment naam den da ngeen di ñëw ak seen doole ak euh, seen yéene mais moom au niveau de sa famille su amul soutien ndax du ngeen di farantaal di nemmeeku ay malade yoo xamante ne dañuy dem ba ci biir daal di daamal li nga xamante ne moom la ñuy woowee désistement en pagaille en pagaille Fatou allez-y mhm. loolu moom la ñuy rencontrer je mën naa ne tout le temps dañ koy am mhm. tout le temps dañuy dem ba à la fin ñun association bi suñ demee bi un certain moment déggatuñ la ñu woo la mhm. laaj la yow lan la ci loo nekk lan moo xew et tout dinañ jéem a waxtaan ak yow ba nga wax nga ne li man dama amatul lu ma fajoo wala awma lii defuma lii wala am nañ benn maam boo xam te suñ benn tonton bu ci ne Mamour Segnane moom jaral na ko day dem ba sa kër. Mhm. dina dem ba sa kër xool la laaj la mu ñëw nu woote. Mhm. Zeyna wala Ndey kii da amul lii kii dem naa këram mais lii moo tax ba ñëwatul. Mhm. parce que suñ demee ba gisatuñ la réunion gisatuñ la suñ groupe WhatsApp parce que yor nañu ay groupe WhatsApp yoo xam dañuy échanger ak malade yi. ok dinañ la woo. wala tonton maamu dina nemmeeku xool ci li nga nekk. am pagaay faatu am na ñoo xam te ne dañuy dem pour jënd paquet comprimé bi di jar deux mille et quelques. Mm. am na ñoo xam te ne amuñu ko. Mm-hmm. dañuy suivre seen traitement ba ci yàgg. Mm. ñu arrête comprimé bi su jeexee ñu arrêté. Mm-hmm. rus nañ sa wax nit ne amatuma. tout à fait am na ñoo xam te ne dañuy rus. rus nañ jàkkaarloo yow ne la ah man amatuma njëgu traitement et tout il faut nga wax xoos leen xoos leen xoos leen ñuy mën a door a mën a wax exactement ne amatuñu. Mm-hmm. il faut nga jege leen. il faut nga il nga nekk koo xamante ne da leen di jege ak koo xamante ne ñoom dañuy mën a am facilité. pour ubbeeku à ton pour ubbeeku waxtaan ak yow. Mhm. peut-être am nañ facilité boobu comme que ñun ay jigéen lañ te feebar ay malade lañ comme ñoom. xam nga yow soo gisee sa mbokk journaliste par exemple di nga mën a wax ak moom librement. d'accord c'est pareil comme que ñun ay malade lañ comme ñoom. tout à fait donc yàlla may nañu ba nga xam te ne ñu xam nañ lu ñuy dund. parce que dund nañ ko. donc dinañ mën a waxtaan ak ñoom am fu ñuy jaaro ñoom da ngay gis koo xam day ñëw librement nii di wax ba di jooy. Mm-hmm. day day day soulagé wu day wax ba di jooy soulagé wu wax mm-hmm. problème am ba di jooy. Mm-hmm. mais à la yéen ñëpp lay jooyloo. d'accord mais après nga ne ko xool ñu soo ñu xoolee rek di nga kii mais am na ñoo xam te ne moyen bi moom moo leen di jooyloo. parce que ñëpp xam ne wala ñëpp xam nañ ne feebar yàlla moo ko moo koy joxe et tout. Mm. mais yow soo feebaree faatu te amoo wéeruwaay. Mm. amoo moyen nan ngay def. Mm-hmm. tout le temps dañuy indil cas da ngay toog ba ñu woola am na ay docteur de la place da ngay toog ba ñu woola ne dama am benn cas urgence mooy nii cas social. Mm. kii amul dara lu mu fajoo. Mm-hmm. noo leen di def. Mm. nga gis su fekkee moment boobu yoruñu woon xaalis mooy moment début bi. Mm. nga gis ñu dugg ci page bi wax ci suuf am na benn malade boo xam te ne mooy nii da amul ku nekk mille francs mille francs. noonu la ñuy def ñu yónnee yónnee. ba am liñ ko. vous vous cotisez entre vous. bi noonu lañ doon def cotiser cotiser entre nous. Mm. ba am luñ ko jox. Mm-hmm. yobu ko ci médecin bi mu consulter ko et tout jëndal ko garab. Mm. jox ko mu dem. Mm-hmm. day dañ koy am tout le temps souvent souvent am nañ exemple yu ñoo mm-hmm. xam te ne femme boo xam dafa yore bébé. Mm. dafa dem ba nga xam te ne amatul meew pour nampal bébé bi. te à la fin dañoo jël femme bi en charge fa pare jël bébém bi en charge jëndal ko meew jëndal ko lépp pour meew bébé bi mën a kii. Mm-hmm. parce que bébé la yoroon. Mm-hmm. donc loolu yëpp dañ koy jànkonteel. Mm-hmm. am am chaque jour nga gis ko. donc même si journée bi rek bu ñu toogee foofu am na ñoo xam dañuy dégg dañoo gis journée bi télé déglu nii noonu lañ passé ñoo fekk suñu place du souvenir. tout à ay xale yu ndaw lañ leen indi ay xale yu am douze ans onze ans ñu koy am ñooñu fan lañ xamee stress. Mm. Mm-hmm. chaque jour lu lu ne ngay rencontre tout à fait tout à fait euh, euh, sànq yaa ngi koy wax euh, traitement radioactif bi bëgg la ko joxee di nga tolloog ab diir boo xamante ne da ngay nekk en isolation totale doo am contact avec sa famille ndax mus ngeen jànkonteel au sein de votre association koo xamante ne ci début bi eh, pour mu pour mu pour pour mu miin loolu nekkul woon lu lu difficile parce que xam nañ ne on vit en famille boo demee ba ñu détecter la benn anomalie nga wax toog 15 jours dans ton coin loolu rek sax mën na yokk stress bi ndax mosu leen jànkonteel ay cas yoo xamante ne ñoom euh, maladie bi c'est quelque chose isolation bi c'en est une autre. d'accord léegi Fatou maanaam euh, su nekkee côté iode bi moom. Mm. amuñu amaguñu cas boobu côté iode bi. Mm-hmm. parce que iode radioactive dafa nekk loo xamante ne ñu bari xamuñu ko fi. Mm. ñu bari ci maladie. Mm-hmm. xamuñu ko woon amuñu woon information bi dinañ ko amee amuñu ci détail. parce que ñoom pour ñoom soo boîte daal yow da ngay faj ba mu wéral boppam wala opération loolu lañ ci xamoon mm-hmm. donc moom moo taxoon looloo tax ñu jël thème bi mm-hmm. looloo tax ñu jël thème bi ren mm-hmm. yot bi ñu jël euh, professeur bu jógee CTO mm. mooy hôpital général Idrissa Pouye waaw boo xam te ne moom moo ñu defal exposé bi parce ñoom ñoo si liggéey je crois bien professeur Bathily la moom moo ko def. Mhm. defal ñu exposé bi mën mënoo wax maladie. Mm. expliqué leen exactement iode bi lan la jarul ragal aussi. lii ak li saa lii ak lii lay lii maanaam expliquer iode bi daal. waaw lëpp lëpp lëpp pour ñu mën ko xam. waaw parce que iode bi sooy xool da ngay gis ñi ko def ci suñu man ñi ma rencontré ci suñu groupe bi asmat bi noonu association bi ñu ko def sooy tànn ci ñi ma xam ëppul dix personnes. ci ñu def iode bi. ci ñi def iode bi mhm. ëppul dix personnes mhm. ëppul dix personnes ci ñi ma xam mhm. ndax dafay expliquer dañuy def traitement chirurgical bi mu ëpp wala waaw fii Sénégal fii nii ñi koy expliquer ñoom ñoo ëpp li ñuy expliquer traitement chirurgical bi moom moo ëpp wala ñu ne la traitement bi nga xam ne day dem ba seeyal boppam. mais juma traitement boobu noonu moom moo gën a cher parce que boobu ci ay xibaar euh, prix bi dana weesu lu ëpp deux cent cinquante mille. mooy chirurgical bi. waaw chirurgical bi. waaw chirurgical bi si ça tourne autour de deux dépend ci hôpitaux yi. ça dépend ci hôpitaux yi. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax ma naan xam nga ba information bi moom moo des. tout à fait sooy xool gënut a cher euh, traitement chirurgical bi. Mm-hmm. mais information bi ñu am ci traitement chirurgical bi. amuñu ko woon ci traitement ci traitement par iode bi. looloo gën a tax. xam nga noo mënoo def loo xamul. Mm. parce que man il a sama médecin ñi waxtaan ba mu wax opéra ma ne ko man opération bi man dalu sama xel daal. Mm-hmm. je ne suis pas prête pour loolu après ci la ma expliqué mu ne ma am na benn kii iode et tout expliqué ma man tam ma dugg internet xool. Mm. lan mooy iode et tout après ci laa accepté dem su dem euh, hôpital bu kii CTO bi léegi ñu wax ma ma gën a waxtaanee ak médecin bi ma waxtaanee ak médecin bu baax léegi après ci la ma expliqué. expliqué ma lépp ci laay door a sama xel ci lay door dal ma def ko ma jël ko parce que man mi personnellement moom laa def. Mm-hmm. mais sooy xool gënut a cher be. Mm-hmm. sensibilisation bi moom moo des. moom moo des waaw. Mhm. Euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi lu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Diouma Ndour mu nekk secrétaire général bu association des malades de thyroïde Diouma dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro bi ak euh, suñu façon alimentation euh, ci ay information dañuy xamle ne am na yoo xamante ne certainement boo ko amee eh, boo amee goitre war nga mën a éviter yenn lekk yi lu ci mel ni bu sucré bu gras alcool ak euh, yee xeet yu ni mel noonu mais te jii ndax jàpp nga ne régime bi dina yomb d'autant plus qu'on sait que on est dans la société on mange en famille régime bi certainement euh, pour nga am jàngoro respecté ko à la lettre day nekk lu jafe. léegi mm-hmm. euh, bi noonu man personnellement man euh, sama médecin mosuma wax bàyyi lii lekkal lii wala éviter lii. Mhm. maanaam sucre bi ak sel bi et tout lu gras yii yëpp ñëpp ko war a éviter. Mhm. loolu moom ñëpp ko war a éviter ku am goitre ku amul goitre et tout c'est à éviter. parce que mhm. muy nekkul su nekkul goitre ak lu mënta doon mën na la indil beneen feebar. donc lépp luñ mën a éviter dinañ ko éviter. peut-être ko dinañ la wax nga éviter ko lu gras et parce Euh, soo amee euh, goite bi soo demee di consulter wu surtout base doof bi dinañ la laaj que dinañ la consulter xool sa tension fu mu toll. dinañ ko xool dinañ xool sa toowu kii sucre pour diabète dinañ ko xool loolu yëpp dañ koy xool. Mm-hmm. donc suñ demee bi di la naan éviter euh, sucre ak lii peut-être loolu la. Mm-hmm. parce que sa tension dinañ ko xool ba xool ndax hypo nga wala hyper mm-hmm. ñu xool sa taux sucre pour diabète. yow chaque consultation saa yoo demee dinañ dinañ la ko xool dinañ xool loolu yëpp. Mhm. donc léegi aussi parce que depuis bi da doon dégg ñuy naan ñi amul euh, ñi manqué iode manqué iode moom mooy indi manque d'iode moom mooy indi goitre. goitre waaw début bi loolu lañ doon dégg. Mhm. tout le temps mais léegi xam nañ ne Sénégal fii euh, sel bi c'est de mhm. sel bi c'est iodé peut-être manque d'iode dina ko andi mais dañ lay liñ lay gën a wax médecin dañ lay ne moytul stress. moytul stress bi nga moytu di wéet trop moytu di xalaat lu bëri et tout. Mhm. soo ko mënee éviter. donc loolu la ñuy gën a loolu la ñuy gën a wax daal. Mhm. maanaam di focaliser wu trop trop trop trop ci li ngay lekk dinañ la wax nag dinañ wax nga éviter. Mhm. mais duñ si focaliser wu trop trop trop. comme ni nga ko waxee aussi si njëlbeen fii xam nañ ne. pour régime day métti fii Sénégal. day régime rawatina bu sa loxo jotul si ginnaaw. surtout sa loxo su parce que déjà malade yi li ma waxee ci kaw rek malade yi ñu fiy jànkonteel am problème pour jënd garab. Mm-hmm. soo leen naanee dafal sa régime bu bopp pour lekk ñooñu da nga leen di rey. Mm-hmm. ñooñu moom mooy ne dam leen toog rek ci armée yi toog di xaar. <laughs> parce que ku amul loo jëndee garab pour lekk faatu. Euh, pour naan pour faju après nan ngay def pour jël régime di lekk pour régime. Mhm. bo kii wal sa bopp mënul nekk. mais c'est compliqué. c'est compliqué mais di nga éviter aussi loolu c'est pour ñëpp. Mhm. lu gras lu salé trop sucré tout ñëpp dinañ ko éviter. tout à fait euh, le vingt cinq euh, bu ñu génn le vingt cinq mai adduna wërngal këpp dañu doon màggal bëccëg bi ñu jagleel li nga xamante ne moom moo di thyroïde am na sax benn benn benn benn thème xam naa boobu c'est sur le plan international ndax certainement dëkk bu nekk ak réalité ma mais thème bi dafa porté woon ci euh, maladie de la thyroïde et son environnement socio-affectif tey ji choix bu ni mel donte xam naa bokk ci choix sénégalais mais et comme que choix yi c'est dañ koy discuter apparemment mën nga am une idée de environnement socio effectif bu ñu yëkkatee choix bi nu mel lan nga jàpp ne moo nekk ci ginnaaw d'accord maanaam euh, mun ci li ma jàpp mm-hmm. mooy environnement socio affectif mooy li ma la wax sànq rek mooy li nga xam te ne environnement bi ñi feebar dañoo soxla benn euh, environnement boo xam te ne bu dal la propice aussi ñu comprendre leen mhm. ñu comprendre leen parce que goitre aussi yow yow mi koy am yow te pas bien du tout te toujours nerveux et tout donc kooku soo ko comprendre rek day doy day doy waar donc su nekkul ci environnement boo xam dafa propice ci moom rek du baax mhm. maanaam côté affection aussi dañ ko soxla mm. soxla nañ ko torop mhm. parce que da ngay gis koo xam te ne manque d'affection dafa baaxul ci kenn parce que manque d'affection boobu foog naa waa Guaté soo xoolee ñu lay naa da nga stressé wu da def nii da ngay dem senti tu te sens seul et tout foog naa loolu yëpp moo bokk na ci cause yi nga xam te ne ñoom ñooy indi euh, euh, stress bi buy causé Guaté ci li ñu wax. Mm-hmm. d'accord mm-hmm. donc thème boobu nga soulevé dafa mel ni thème boobu def nañ ko moo nekkoon suñ kii 2019 bi. Mm-hmm. suñ tam la woon 2019 def nañ ko. donc environnement bi ça joue ça joue tellement. ci euh, malade bi ak malade bu mu mënta doon as rawatina nag ku am goiat ñu naan stress moo la koy teg xalaat yu bëri et tout donc da nga war a nekk ci environnement bu dal nekk ci environnement ñoo xam te ne comprendre nañ la foo mën a épanouir aussi parce que épanouissement dafa baax ci doomu aadama mm-hmm. <laughs> d'accord euh, mënuñu wax ci jàngoro yi gis ni xam nañ ko ce serait une répétition euh, deux mille vingt deux mille vingt et un coronavirus bi mu ngi fi avec son lot de malheur mu mel ni nag dafa am ñoo xamante ne dañ leen di wax ay nit yoo xamante ni ñoom ñooy ay personnes à risque boo jëlee ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay diabète ay maladies cardiovasculaires depuis le début ci communication bi soxol euh, coronavirus bi dañu mettre trop l'accent cent si ñooñu nga xamante ne ay ay ay cas lañu ay cas cas de morbidité tey jii yéen ñi nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo am jàngoro bii di thyroïde ndax ñoom tamit bokk nañu ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay personnes yoo xamante ne ay personnes à risque lañu. normalement da bokk na si bokk na ci faatu. Mhm. parce que tey yow soo xoolee ci goiat lu mu englobé yëpp maladie thyroïde lu mu englobé yëpp. donc personne à risque bokk nañ ci suñ ko waxee suñ ko waxul aussi bokk nañ si. Mhm. parce que yow soo amee goitre par exemple ñi nga xam dañuy am problème cardiaque palpitation yi et tout ñu koy am yow problème cardiaque déjà foo ko amee des fois di nga am yenn dinañ dem ñu xool sa taux sa taux de kii sucre dinañ ko xool. maa ngi la koy wax sànq dinañ xool sa tension et tout. Mhm. te ñoom ñëpp nee nañ personne à risque la. Mm. donc waa soo demee ñu lay xool loolu yëpp kon ça veut bokk nañ si mais comme li nga ko waxee rek communication bi ñu war a def ci euh, Guatt moom moo des. moo des moo des. Mm-hmm. mooy ni ko war a jëlee fii Sénégal ñun ñoom ci communiqué lu ñu mën. Mm-hmm. mais côté niveau ministère. ni ñu ko war a jëlee xam wax nañ ko dès le départ. tout à fait ministère ni ko war a jëlee moom moo des. Mm-hmm. donc su fekkoon ñu ko waroon a jëlee jëlee nañ ko fa noonu à quatre-vingt-dix pour cent rek laa la wax. Mm. donc information yooyu yëpp dinañ ko am. Mm-hmm. duñ toog ba nga feebar bi am dañuy obligé ñun di woo ay médecin di leen di laajte ndax ñun mën nañ def lii ndax mën nañ def lii ndax ñun personne à risque lañ ou pas. Mm-hmm. médecins yi ñoom ñooñu obligé di ñu naan waa personne à risque ngeen éviter leen kii bi day leen di sol seen masque day leen di def lii. Mm-hmm. ñun du ñu amee accès ci médecin yi. am na ñeneen ñoo xam amuñu accès ci médecin te ñoo ngi guwaat. tout à fait tout à fait. am na ñoo xam te xamuñu ñoo ngi guwaat. Mm-hmm. donc peut ñu nekk ci association bi xam asmat suñ jotee ñun information bi dañ koy partager suñ groupe bi partager ko ci membre yi. Mm-hmm. au moins ñoom dinañ am information bi. Mm-hmm. mais ñi nga xam te ne xamuñu association bi xamuñu amuñu benn affinité ak médecin duñ ko xam. tout à fait donc ñoom ñoo ngi dem nii nii xamuñu. si mhm. ay personnes à risque lañ ou pas. mu mel ni le mal est un peu plus profond. effectivement. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, te jii dañuy des euh, ci ci ci ci ci wàllu woowu jàngoro mm-hmm. coronavirus bi def nañ ci sensibilisation certainement euh, pour une pour ñi nga xamante ne xëj na seen kàddu dina yegg fenn fi te jii rek lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne moom moo soxal la la la prise en charge thyroïde de manière générale. Eh Euh, prise en charge de bi nga xamante ne mhm. moom la ñuy am euh, jàngoro bii di thyroïde wax nañ ko opération bi cher na sensibilisation bi des na mais est-ce que am ngeen ay subvention bu dëgër dëgër loolu euh, pas subvention nii nii nii rek mais xamante ne am ngeen wéeruwaay boo xamante ne di ngeen a gën a mën a venir en aide seen seen seen ñi ngeen di jàppale surtout du côté de l'État rawatina ci jàngoro bii di jàngoro bu coronavirus bi. nga xamante ne comme ni ma la ko waxee il continue de faire son lot de malheur. amaguñ ko Fatou boobu amaguñ ko. Mhm. donc subvention bu régulière boo xam ne dinañ xam ne chaque année dinañ xalaat ne dinañ am subvention bi pour mën a jël suñ malade en charge venant de la part de l'État wala suñ euh, ministère bi aussi euh, c'est c'est de la part de l'État. donc amuñu ko. amuñu ko subvention régulière lu ñu am ci subvention mooy ne journée suy ñëw. Mm. ci journée moom la ñuy amee li ñuy amee moom la ñuy am. Mhm. suñ pare moom la ñuy xool nu ñuy def ñi nga xam te ne ñoom ñoo gën a urgent cas yu urgent yi ñu def ko ci. Mhm. donc corona bi bu muy yegsi aussi ministère jox nañu ay gel masque ak euh, produit détention eau de javel et tout. Mhm. yooyu jox nañu ko. jox nañu benn lot de carton et kii pour euh, kii maladie mm-hmm. loolu jox nañu jox nañu ko. Mm-hmm. mais subvention régulière boo xam te ne dinañ mën a xalaat ne yow mais ah yow de so soo amul soutien venant de quelqu'un yow di nga am yow benn subvention boo xam ne nga ko xaar ci état bi annuellement. Mm-hmm. nga mën a jël en charge say malade wala nga mën a def lii amuñu ko faatu. amaguñ ko fu mu toll nii loolu moo ñu manqué surtout. Mhm. ndax da ngeen di liggéey en partenariat avec euh, euh, ministère bi bi bi ëmb lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram de manière générale est-ce que am ngeen ay partenariat vous travaillez ensemble il arrive que ngeen bind ay lettres euh, bu ngeen amee ay cérémonie bu weeso journée mondiale bi bien sûr. si ñun su dañuy bind ay lettres Fatou. dañuy bind ay lettres et tout pour euh, ñu dugal ñu action sociale et tout. Mm. bind nañ ay lettres def ay démarches dem nañ ba foofu action sociale seen siège dañu nañu ñu yi ngeen di dugal pour ñu def démarches yi et tout. Mm-hmm. def nañ démarches yi dañuy bind ay lettres ba sonn ñoo ngi ci daal ba tey jii ñoo ngi ci. Mm. ñoo ngi ci mais yàlla baax na je vois que moo ngi am amélioration aussi. touti tuuti. bon tuuti tuuti moo ngi am amélioration. Mm parce que eh, suñ demoon ba début bi mu métti woon pour ñu am accès sax foofu métti woon na mais actuellement ñoo ngi am amélioration. Hmm. ñoo ngi siy jàppale aussi. am na ñoo xam te ne ay oo kii ñu fa nekk aussi ñoo ngi siy jàppale bu baax jël asma def ko seen seen mbir. Hmm. parce que foo dem rek am na ñoo xam ne dañuy dinañ gis benn benn benn kii association boo xam te ne xam nañ ne lii lu ñuy def du caaxaan du suur seen bopp. Hmm. parce que lu ñuy def du suñ pour suñ bopp. donc am na ñu siy jàpp. et mhm. je vois que instant moo ngi dem ndànk-ndànk daal. tuuti tuuti. ndànk-ndànk te ñoo ngi leen di woon nag ñu gën a baral seen loxo parce que malade yaa ngi fi faatu. Mhm. ñoo ngi fi am pagaay dañuy dañuy am ay cas yoo xam soo tëddee doo nelaw. Mhm. parce que da ngay naan man kii suba ma waxoon ne suba dañuy def nii ak pour moom lan lañ koy defee. doo nelaw. mais actuellement moom je vois que moo ngi kii ndànk-ndànk ministère ñoo ngi gën a am. Euh, accès ci ñoom et tout daal. Mhm. yàlla baax na. Mhm. Mhm. mais mais mais mais Diouma Sénégal dañuy faratal di wax la santé pour tous boo déggee la santé pour tous moom mooy ku feebar faju alors que structures yi ñu ngi fii euh, mais yenn saa yi dem au niveau des des de des structures dagg ticket c'est pas donné à à tout le monde parce que consultation xaw ma chiffre bi de trois mille cinq cents six mille va savoir e ça ça ça dépend ça dépend ça dépend euh, ci hôpital bi nga xamante ne foofu nga dem alors quand mhm. on prône la santé pour tous alors que l'accès accessibilité bi dafa des est-ce que foofu tamit waruñu ci gën a impliqué wu du côté des des des autorités bien sûr effectivement Fatou comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp la santé pour tous je me dis que c'est un slogan un slogan man pour man mhm. parce que sooy xool la santé pour tous des na. ba tey ñoo ngi def xam nit yi moom ñoo def lépp à cent pour cent mm. mais des na parce que da ngay gis ñoo xamante ne tey du ñëpp ñëpp ñëpp faatu ñoom ñoo mën a fay consultation mm. mille francs laa la wax de mille francs moo gën a tuuti du ñëpp ko mën a fay tout à fait ñun suñ consultation ay cinq mille lay nekk consultation malade de la thyroïde su ñuy dem cinq mille francs la ñuy fay. cinq mille ronds. cinq mille francs la ñuy démarrer. Mm-hmm. donc am na ñoo xamante ne dañuy paas joge fu ne ñëw. Mhm. suñ ñëwee duñ am sax suñ consulté woo ci lañ yem yow soo consulté pare ñu bindal la ordonnance loo koy jëndee ji mhm. da ngay fay cinq mille da ngay korkoral pour fay cinq mille juste pour médecin bi xool la te médecin bi su la xoolee amul garab yu mu la jox pour nga naan moom daf lay xool rek bindal la ordonnance thyroïde moo nekk loo xam te ne médecin bi tant que defoo analyse mënu la jox diagnostic. mënu la jox diagnostic. il faut nga def analyse. Mhm. parce que lépp ci deret bi la. tout à fait yow tant que defoo analyse mënul xam exactement sa état fan la toll. Mm-hmm. donc t'es obligé chaque kii saa yu ñëwee consultation mu bindal la bulletin d'analyse nga dem def ko. Mm-hmm. léegi loolu est-ce que c'est c'est pas donné à tout le monde. Mm-hmm. donc la santé pour tous yooyu ñuy wax il ñu gën ko yaatal gën ko appliquer. Mm. ñoo koy appliquer gaa mais des na. des na bu baax a baax a baax a baax te en plus ñun lu suñ problème mooy gën gën a nekk suñ problème côté hôpitaux yi mooy ne lépp dafa focaliser wu ci Dakar presque. c'est là où j'allais en venir allez-y dama la bëggoon wax. ndax mhm. il arrive que ngeen am ñoo xamante ne dañuy nekk ay urgence nekk ci région yi mais impérativement il faut que ñu def le déplacement euh, yegg si dakaar effectivement am ñoo xam te ay Matam la ñuy jógee Touba la ñuy jógee Fouta xoola Fuuta fu mu nekk yow balaa ngay ñëw rek yow sonn nga mhm. nga jóge foofu sori ay régions yi la ñuy jóge di ñëw pour faju si fii Dakar Fatou c'est pas normal da ngay gis ay hôpitaux yu mag yoo xam te ne spécialiste bi du fa du fa am mm-hmm. te pourtant malade la comme ñëpp maladie la comme ñëpp comme yëpp maladie yi donc normalement loolu problème pour le du problème bu gwaat kese je je me dis que c'est général un général mm-hmm. donc ñun ñun goat laay kiiwal maladie de la thyroïde yi ñun nañu jàppale ba nga xam ne même su mënut am benn spécialiste dans chaque hôpital mais ñu def de telle nga xam te ne euh, du malade malade bi du du du soxla di jóge Touba wala di jóge ay Fuuta Matam bi ñëw donc na am koo xam te dina rapproché wu tuuti pour mën a def euh, fajam mhm. pour mën a faju au complet da gis maladie yi dañuy sonn parce que yow déjà rek condition yi ngay ñëwee transport balaa ngay yegg si nga. tout à fait. des fois doo am foo nekk Dakar da ngay obligé consulter wu tey ñibbi. Mm-hmm. ñu jox la analyse nga dellu si waat soo defee consulter wu def analyse ñibbi ñu analyse yi su génnee nga door a ñëw ñëwaat de. door a delluwaat. Mm-hmm. dafa métti parce que analyse suñ la navette bi aussi navette bi entre Dakar ak euh, région yi. Euh, nekk na tamit le gros problème. dafa métti lool mooy problème boo xam te ne moo gën a métti ci li maladie di jànkonteel. Mm-hmm. d' accord euh, tabax nañu ay ay ay ay ay ay ay ay hôpitaux certainement mais mu mel ni ressources humaines bi sa sa ça sa sa ça fait défaut euh, comme pratiquement ñi ko ñëpp di waxee moo xam ñi nga xamante ne dañu am problème mu cardiaque insuffisance rénale euh, soo leen joxee kàddu pratiquement ils te disent la même chose da ngay dem ci benn hôpital mais pour nga gis koo xamante ne spécialité am foofu la nekk daanaka day compliqué il arrive que nga def deux à trois déplacements sax chaque fois dañ lay wax que cardiologue bi nekk fi wala spécialiste bi nekk fi mu mel ni foofu tamit euh, war nañ fa def ay jigo yu am solo loolu ndax feebar feebar la rek mais ku sañoon soo feebaree nga am euh, ku lay fecc euh, mu mel ni waxtaan wi neex na juma Ndour mais dafa mel ni li ñu coxaloon ci waxtu wi daanaka léegi te ñu yegg ci tey jii lan mooy sa cri de cœur ak soo amoon plaidoyer ci fan nga koy accès Diouma plaidoyer bi ma am ñi fi ñëpp di ko yóbbu rek mooy suñ gouvernement bi chef de l'État parce que moom moo ñu fi moom mooy mooy suñu pàpp ñun ñëpp fii mm. moom ak ministère de la santé suñ ministre tutelle mm-hmm. bi ci ñoom laa koy yóbbu ak bonne volonté yi fi nekk donc nañ gën a def maladie bi ñu gën a jàppale les malades de la thyroïde mm-hmm. nañ leen gën jàppale surtout suñ ministre tutelle parce que instant bi nii dañoo suñ cri de mooy sonn nañ sonn nañ dangay jànkoonte lu nekk ngay gis malade yaa ngi fii amuñu lu ñu fajoo wala diñ di nga am xaalis mais doo am doo gis euh, benn spécialiste euh, spécialiste bu la mën a faj parce que da ngay dem ci hôpital comme ni nga ko waxee léegi rek doo ko fa gis doo ko fa fekk mm-hmm. du am da ngay obligé def des kilomètres ñëw Dakar donc nañu si jàppale ak rupture médicament yu ñuy jànkonteel rupture médicament yi waaw dañuy jànkonteel ay rupture médicament yu métti métti faatu mm-hmm. parce que c'est pas normal traitement thyroïde goitre traitement bi soo ko soo sotee traitement deux à trois jours rek da ngay recommencer waat à zéro da ngay chuter waat mm-hmm. du feebar boo xam su la neexee toog un mois doo jël garab mm. trois jours soo jëlul garab mu chuter waat soo demee sa analyse wone ko mm-hmm. donc rupture médicament yooyu sonnal nañu torop sonnal nañu ñun association bi aussi amuñu sa fu ñu xam amuñu fu ñu jëlee regroupement ak maladie. Mm-hmm. soxla nañ benn siège boo xam te ne au fait au moins sa maladie suñ ñëwee dinañu fekk fii ñu xam te ñun fii lañ nekk ñu mën leen jàppale. Mm. soxla nañ ko torop. Mm-hmm. ak suñ prise en charge maladie cas sociaux yi suñu jàppale woon ci prise en charge maladie surtout. Mm-hmm. opération bi métti na. faju bi da ngay bëgg a faju doo ko mën mhm. donc en somme mënuma wax lépp parce que temps bi mayuñu ko mhm. mais en su ñu mënoon a jàppale ci point yooyu mhm. rupture médicament yi prise en charge cas sociaux yi surtout côté opération et tout ñu ubbil ñu seen bunt yi ñu mën a am accès ci ñoom suñu ministre tutelle mën ñëw jàppale siège ñu mën a am siège boo xam te ne au moins dinañ mën a am fu ñuy regrouper ak maladie di recevoir maladie. Mm-hmm. Mm-hmm. surtout loolu faatu. Mm-hmm. en plus euh, euh, en plus de la de la de la cherté des médicaments mu mm-hmm. am ma beneen problème boo xamante ne yokk nag ci muy li nga xamante ne moom moo di rupture de médicament Diouma euh, ñu yaakaar rek ne ñi war a dégg kàddu yi dinañ ko dégg dinañ ko dégg di sabablu rek jàpp yaakaar ne rek euh, ñi ko war dégg dinañ ko dégg te itamit amaana ma buñ ko déggee dinañ ci def taxaw bi war ba mun leen leen euh, dëfal waaye tamit ba mu leen euh, jàppale ñoom ci seen doole ba euh, ngeen mën a def seen traitement apparemment traitement bi soxal jàngoro bi di thyroïde c'est un traitement c'est un traitement à vie. effectivement traitement à vie parce que Fatou si la waxe tey ne dix-huit mois traitement maximum deux ans yow mën nga dem ba deux ans doo stable. Mm-hmm. mais soo amee chance tab dañ lay arrêté loo garab bi nga dem toog sa kër et tout ñu ne la éviter stress et tout. Mm-hmm. mais am dañ leen di arrêté loo garab bi ñu rechuté waat donc suñ demee médecin su demee pour nga bañ nga rechuté waat daf naan defal opération. Mm-hmm. soo defee opération wala iode bi léegi soo ko defee loolu ñoo ñu génnee ci sa gorge bi noonu day am lu koy lu koy euh, nu mu tuddati sa li nga xam te ne moo koy remplacer. Mm-hmm. loolu noonu mooy levothyrox bi ngay jël. Mhm. comprimé bi ngay jël à nga koy jël. Mm. donc chaque jour di nga jël levothyrox moom moo tax ñu naan traitement mhm, à vie. tout parce que suñ la suñ la xasee ba opéré soo dañee doo stable il faut nga jël lool pour nga euh, mën a am sa thyroïde muy fonctionner normalement. tout à fait parce que thyroïde da nga soxla ñëpp ko am ñëpp soxla mu fonctionner normalement. Mhm. su amee dysfonctionnement rek moom muy indi feebaru guwaat ak yooyu. d'accord. <laughs> Eh, sant ko gërëm ko moom Diouma eh, Ndour ma fàttali ne moom moo nekkoon suñu invité ci suñu émission bi di SOS santé Diouma Ndour nag moom mu nekk secrétaire général bu association des malades de thyroïde eh, sant leen yéen i tamit mbokku auditeurs yi ci déglu bi ngeen ñu doon déglu ma fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité